noonu nee naa leen 7TV ndéwénal gu neex lañ leen jox tey nag ki ma fi dalalaat di sama soppe di sama xarit di sama lépp muy alaaji góor a ñan ñu am benn soppe bu ñu boo ko bëgg muy Cheikh Omar Kane moom nag dama koy bàyyi rek moom mu jox ma sama ndéwénal Cheikh Omar <laughs> Kane Diallo maa ngi lay siyaare bu baax Cheikh Omar di la wax eh, wax dëgg yàlla teraanga yi ngay def si àddina gis nañ ko surtout si tabaski bi ndax eh, xam nañ ni yaa ngi dimbali néew yi doole bu baax baax Cheikh Omar ñi lay siyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay waaye damay bàyyi sëñ góor eh, bàkkal ñu ko ndax Cheikh Omar day kenn si man waaye day kenn si moom mii sëñ sëñ góor ay ci bismillah sëñ góor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 mbokk yi gannaaw ba ñu sant te yàlla cant gu yelloo moom ju màgg ju tedd ju sell ju kawe jooju la julliti ca ka nga xam ne yàlla bu doon kër mooy doon buntam te mooy Seydina Muhammad ñaan yàlla na yàlla dolli ñoo bëggloo rasulullah yàlla na yàlla rey ñu ci bëgg Seydina Muhammad sunu xol yàlla ci rasulullah fees dell lu dul cofeelu ko yonent bi yàlla bu nu ko gis lu dul cofeelu ko yonent bi yàlla bu nu ko bëgg ci sunu xol ñaanal xalif général di Tijaan Sëriñ Babacar Si Mouhamadul Mansour mu yàgg fi loolu te wér loolu ba yeggale jumaa ji ñaanal xalif général di murid Cheikh Mouhamadul Muntaxa al ñaanal ko yàlla dolli ko wér ak mboolem xalif généraux yi ci réew mi yëpp waaye Moustapha ñun nuyu la ziyaar la ndokkeel la ñaanal la yàlla defal la xéewal nuyu waa Sen TV gi macha allah. ñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sangub Cheikh Oumar nga. <laughs> wa ida saxara al ilaahu unaasan li saidin fa innahum shuhadaa yaa sayyidal kawnayni yaa alamal hudaa sayyidina Muhammad yaa badrati min fil wujudi alal mabaay sang ba yaa xayra xalqillaahi yaa man faydu woo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amal baraaya munta wal mubtada yaa kawkaban faaqal buduura bi xusni saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mursalan bilxaqi dawman sarmada yaa naasira diini alqawimi wa alihi oo saturundooy saydina muhammad yaa saaqiyal kufaali kaasaati radaa. bika naalatil aafaaqu kullu fadilatin wa tasharrafat lammaa janaabuka qad badaa. Moustapha dafa am benn waay bu ñu naan sawbaan dafa ñëw ci yonent bi fekk Seydina Muhammad mu toog mu ni ko ay yaa rasuulallaay kañ la saadi taxaw. mu ni ko yow loo ko prépareel mu ni ko xanaa bëgg yàlla bëgg Seydina Muhammad laa ko prépareel Yaasin mu ni ko xanaa xamoo ku mu bëgg man ak yow mbagg ak mbagg ba aljana doy nga ma wéeru waay doy nga ma kaaraange billaay su wi teroo Medina falaay laange falaay laange falaay laange falaay laange falaay laange falaay laange wi teroo Medina falaay laange Muhammad nag mooy maami Cheikh Seydi Ahmad Tijaani قد قاسوا مولى طريق شواعة يكفي سلوك به عن البرهان maa ngi bëgg a bàkk sangu góor yàlla yépp waay ki may bàkk mooy sangu daayiratil wilaayati fi aalamil ashbaa'i Cheikh Tidiane ki may bàkk mooy soppey Cheikh Sidil Xaaji Malick Ba ki may bàkk mooy mborom dardaas ak Meknaas ki may bàkk mooy borom daarul maraaya mooy borom sidi maaruf mooy borom rabaa ndax muy sëriñu sidi arabi cheikhuna tijaani cheikhuna tijaani cheikhuna tijaani moustapha ki ñaagal sang barhama ñas koo koy cheikh sidi ahmada tijaani xatamal wilayata ma xafa seexa yi sëtub gën gi mindéef ba tet ak cey donam ca mbot yaag ca leer yaag nga nil yaaki may yaa seyxana ya ahmada tiijaane ay waay cheikh sidi ahmada tiijaani jadallaahu qutban qad xawaa bi madiyatin sëj Babacar nee na ينجي لمن يأوي له بمدرتي شيخنا التيجاني شريف تعول المزايا والزوايا لنفقنا alaa innahul insaanu aynu xaqiiqati mbay ma naay la tahni min mbadaaya way way leen ma naay la yee Sëriñ Babacar Se way ma naay la fitna sulel tahni min mbadaaya Seydi TV alhamdulillahi hada sheikhu rabba خير الوجود الذي أعلاه مولا وي ويلا ما نايلا أنا كان ما في جنب بدي سين بابكر يا ويمانا مصطفى من طالب شيخ لخجك وربابي لا خلوة كنا أصحاب على حتى تقام فيا لله من حال يا ويمانا yee Sëriñ Babacar Sy way manaay tahmimin masaya xalifa way bi matin aw bi halin hada tarbiyatan ni'mal murabbi muribul haqi yarda la la ya way manaay Serigne Babacar Sy way mana ay samto mi mena masaya khalifa way ala alkhilafata qad sa'at wirasatu ata wa khatmun min arrahmani wal jalal kan ma fi gën a bëgg sëñ Babacar satwoo ata waxat awaay min arrahmani Mustafa yaw ata xatumun xatumun ku dul cheikh déggoo loolu ata xatumun min arrahmani wal jaa ay waay xataman ku dul Cheikh déggo yow ataaw ay waay ku fi gën a bëgg Sëriñ Babacar ataaw xatman xataman ku dul Cheikh déggo yow ataaw xataman min arrahmaani wal jaal Set TV yindallay wa yandina ata wa khataman awa min arrahmani wal jaa acedif lenni fihi jadwa si yarsila kha fihi jadwa khula yakama bab kursi jolna namla fihi jadwa wa nambai fihi jadwa fihi jadwa wa sam fihi si jot waawa Babakar si jal na namala fiixi jot waawa kon jaaraama Seydil Haaji Malik si jot waawa jaaraama Seydil Haaji Malik si borom ju maaji jaaraama Seydil Haaji Malik si loxo kam abidin saa عشكم عالم أي وارع عشكم صالح واصل لولاك ما وخلكم سلت كم عزت كم باشرت كم كم كم ولا كم كم كم وكم ثم كم أرسلت خير aca jaaraama Seydi El Hadji Malick Sy Cheikhul Khalifa Babacar Sy jalana namala bayu borom daara ji maam Khalifa Babacar Sy jalana namala ku fi gën a bëgg sëñ Babacar Sy maam Khalifa Babacar Sy jalana namala yow yaay borom leer yi maam Khalifa Babacar Sy jalana borom leer yi borom leer maam mbay yow yaay borom leer yi maam xalifa. Babacar Si Jolof. sëñ Babacar. si ku ko doy loo sa loxoy ca kaw sëñ Babacar yow yaay borom leer yi maam xalifa sam ndeke samedi ba samedi la daan watu dàq fi raw fi yàggu fi yàqu fi yaay borom leer yi maam xalifa ku ma gën a bëgg sëñ Babacar sa loxoy ca kaw waxal ñi nar baax yaay seen sëriñ maam xalifa Babacar Si jalana Mustafa wa innani qad kuntu min ahli ndaari wa maskani bi ala daari andaari اسناني أربعون قل ذاك العدد سام لنورتي داري إذا رمت إذا رمت مدى رمت إذا رمت مدى رمت إذا رمت مام خليفة ñi nara baax yaay seen sëriñ maam xalifa alxaaji Mansour borom bal xaw mi Muhammadu Mansour Alaaji kooku mooy baay Sëñ Bay Mansour loxo inni xaalaftu bi rabbil bayti wa tuuri ma in raaytu fatan fi naaka lay lay la najlil imaami huma man Alaaji Maalik koy seyxil masaayixi Allah di kooku mooy baay sëñ Bay Mansour setti fi araftul wara sharqan wa gharban wala ara kamisli fatal Mansour في سائر الورى إذا سابق الأقوام يوما إلى العلا يكون إماما في الورى والورى والورى أي والورى محمد منصور الله دي كوكو ماي باي سين باي منصور سين باي سين منصور لك تي الخليفة فيه جدوى مباي sàlla haaji góor euh, fi nga ñu génnee neex na lool wax dëgg yàlla euh, soppe yi sëñ si yëpp a ngi ñu kontaan bi képp kuy bi euh, wax dëgg yàlla mu ngi kontaan si li nga fi tijjee xam naa ni wax dëgg yàlla taal bi xam na si yow ndax am nga foo war a jàngi taala nu mu tuddee Murtala zikrullah si suuf moom it am na fu mu jàng Seydina Ousmane Laay gars yi daal dama leen a njatt tey indi leen si lendemain Korité bi ngir bëggal soppe yi waaye wax dëgg yàlla eh, yonent bi rek moo ko jar moo tax ñu leen indi leen fii ndax soo leen xoolee Facebook bi mi ngi bu a baax même YouTube bi ñu toog si seen télé yi di message may jot boobaak léegi bëri na lool wax dëgg si yonent bi ngeen di tagg ñu leen si jaajëfal bu baax a baax a baax ma si sant bu baax sa jëmm ji ndax woola jot la yomb na lool si ñun heure bu ñu la soxlaa nga bàyyi sa yitte ñëw yaa ak ñoom motalaak gaa yu baax yëpp euh, ma siy béggal suñu yaay soxna Kanku Diagne moom ma nga sa Thiès jiite fondation Sopp Nabi ak suñu bàyyi président Hadji Mour Gueye Sopp Nabi di suñu xarit di suñu kilifa nga xam ne yàggul dara moom it si tabaski bi mu jël ay teranga yu bëri jox ko néew bi doole sa Thiès ñu koy saare bu baax waaye suñu waay suñu waayu bopp ji muy sëñ góora sañ góora sëñ Gouda Dieng sëñ Gouda Dieng nekk diaspora Sopp Nabi sa Thiès di suñu xarit di suñu waay nga xam ne moom it ku mën a def lu baax la moom sëñ Ngouda ñu koy siyaare bu baax te di ko jox sa wàccu waay yàggul dara euh, gisante nañ Cees euh, ñu am lu ñu def nga am lu ñu def ndax terrain yi mi ngi ñëw wax dëgg yàlla yaa ñuy may terrain sëñ Ngouda siyaar nañ baax a baax a baax moom sama Ka du ñu jug ñoom it di ñu jox ay terrain maag moom mii ñoo fa dajawoon yàggul dara ba ñuy Basirou du ñu jox terrain ba waaw ñu koy siyaare bu baax a baax sëñ Ngouda yàgg way ak programme yi xat-xat yi <laughs> jéem lu ñu mën rek des fois nga nga nga jékki-jékki ne ah lii nag métti na. wallaay. ndax doo am vie bu normal ak sa famille. sa mm-hmm. jour yaa ngi ci yitte yi yaa ngi ci activité yi. Mm-hmm. boole kook say programme mm-hmm. te nit ku ñuul moom ñaareel bu la woowee jotu la. Mhm. xewle gisu la rek commencé. Mhm. dafa gaaw yëg succès dafa yëg boppam dafa mhm. nangam ñu nekk ci dudd waaye. ci mbaaxu yàlla rek yàlla ngi ñuy suturaal ba li ñu mën ñu ci def kéem kàttan. macha allah ma gis benn vidéo waxoon daal dinaa ko laaj <laughs> sëñ Gora lan moo tax nga mun a tooñ ndax gis naa benn vidéo TikTok nga am loo ci def. benn xar rëcc ngay tooñ waa ji. dama dama taxaw di def vidéo uh-huh. ndax boobu sama yaa nday saw moo ma yónnee yére bi ma jullee ci tabaski bi uh-huh. yaa nday saw dafa maa yónnee yére ba survêtement bi ma war a sol sax da koo jënd boole ci macha allah bi ma taxawee di ko sant moom yaa nday saw ma jékki dégg xar mi ni mbee ma ni wàll <laughs> net bi jékki-jékki waaye bi daay rëcc de <laughs> macha allah xam nga lépp rek ci jàmm la xaj ak mbégte wax dëgg yàlla nitu kese nga loolu da koy wane ni nitu kese la ndax waxoon naa ko ne su ñëwee dinaa ko si tooñ waaye moom sama waay la sama xarit la du ma ko fi tee nag ndax am na yitte a dox eh, ñu waajal ñu taala taala taala zikru la waa kër borom daaru yi ñëw yëngal fi ndax pianda tay moom xam naa ne borom daaru bi dina fi saf saab lan ngay tàggatoo nga tëjëg ñu ak way si kasu neex eh, xanaa di nuyu soxna mu kal sum mbay hmm. kala mbay kala yaayu daara ji yaayu sëriñ Pape Malick Diop di ñaanal sëriñ Pape Malick ajam na amin amin soxna Kala Mbaye di sëtu Serigne Babacar si di jarbaatu Serigne Cheikh Tidiane si almaktum ak Serigne Abdoul Aziz ak Serigne Pape Mali waaye moom muy sunu soppe sopp nu rek ngir góor gi Adja Umu Kalsum di ko ñaanal borom neexmati daayira bu mag boobu le ñaanal ko yàlla ko yàlla sàmm liggéey bi mu jóg pour taxawu ci ay waajuram ak i maamam ni nga koy ni ngay sagalee kër Seydil Hadji Malick yàlla na la yàlla sagalee noonu mm-hmm. waaye nuyu bu baax a baax a baax a baax jàmbaar ji Euh, Mouhamadul Bachirou Ka sa waa ji mhm. moom nga xam ni yàggul dara may nanu terrain wallaay dëgg la muy man mhm. moo moo tax ku ma ne damaa soxla terrain rek ma ànd ak yow dem ci Bachirou waaye dëgg la mooy Touba Medinatu Njurul mhm. ak immobilier bu mag boobu la terrain yu yi moom moo ko yor te wóor ci réew mi am am am position yu baax moo koy jaay moom moo koy jaay <laughs> Bachir ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla sàmm ñaanal bu baax mbay Diop Jamil Mbaye Diop Jamil deux minutes sunu xarit sunu soppi sunu lépp ñaanal ko nuyu ay soxnaam. Mm-hmm. ñaanal leen mbay ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla sàmm la. Mm-hmm. di la baalu àq ndax moom nit ku tedd la. Mm-hmm. nit ku nu fonk la waaye dinu taxaw ngir yonent bi. waaye nuyu alaaji loo nuyu ko nuyu soxnaam soxna. madame loo ñaanal leen yàlla yàlla sàmm leen. waaye bu baax a baax a baax a baax soxna Yacine Diop soppay si junaam xadd. sallallahu alayhi wa sallam yaayu Cheikh Tidiane ak maam Abdou Sofiatou ñaanal ko yàlla na ko yàlla defal jàmm. nuyu bu baax a baax soxna Assou Ndiaye chéri Bamba Ndiaye ñaanal ko waaye jéggalu ko ñaanal ko way juuram wi génn àdduna mhm. yàlla na ko yàlla yéegee ci barzaqu Seydina Muhammad ñaan ñaanal ko moo ak ay sëram ñoom Maam Ndiaye ak ñoom Coro Coro nga xam ne moom it teraanga yu nekk la ñuy mhm. defal ngir yàlla ak cofeelam ci sëriñ Babacar Sy mhm. ñaanalit bu baax a baax a baax soxna umul xayri boroom fondation Mam Fa Wade Wele di soxna sëriñ Cheikh Omar Kane soxna umul di jàmbaar ndax bis ni ki démb lañ doon ñaanal waajuram di Euh, bu sëriñ Mansour borom daara ñaanal ko yàlla yàlla kawel aljannaam waaye soxna umu lu juram def benn pare na pour def fukkam kon nag ñu ngi lay ñaanal yaayu asiyatu doomi asi yàlla guddal sa fan gën laa bàyyeeg sëriñ bi waaye nuyu bu baax a baax soxna raja euh, raja fashion di maam jaara di mhm. sunu jigéen di sunu lépp ma nga pikin mhm. ñaanal ko yàlla na ko yàlla defal jàmm nuyu bu baax a baax a baax a baax sëriñ Cheikh Omar Kane ñaanal ko président fondation miroir de l'islam mhm. ñaanal ko yàlla na ko yàlla sàmm Mm-hmm. yàlla na yàlla guddal fanam. amiin ndax moom taxawaayam ci ñun du dakk te du arrêté. Mm-hmm. chaque jour que jëfe bu ñuy jëflanteeg ñun teraanga yoo xam ne jar nañu gën ko jàpp. Mm-hmm. oto bii may dawal. 16 millions lay jar. dëgg la moo ko yëkkati jox ma ko addiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko yàlla na ko yàlla sàmm yàlla defal ko tawfiix. ci barke yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa nuyu suñu waa daayira muxlisina wala muxlisaat ñoom mm-hmm. Aline Gueye Ngagne Diop Abdourahmane waa daayira bi yëpp mm-hmm. ñaanal leen nuyu suñu mag imaam Mouhamadul Mansour Ñang mm-hmm. ñaanal ko moom it bu baax a baax yàlla sàmm ko gërëm tam Bachirou Ka moom kenn amul fayam kenn amul fayam Bachirou ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm defal la tawfiix ci barke yonent bi alayhi salaatu salaam maa ngi nuyu sama am di jàmm yi sama xarit yi sama soppi mbooleem kuy suñu soppi nuyu suñu jigéen Khadija Yaxya mhm. ah, mook borom këram ma nga Canada macha allah daa mel ne tey da nga ko def fii fu mbëri de liste nga indi <laughs> tey moom liste mbër laa indi <laughs> ñaanal leen yàlla yàlla sàmm leen ci saa ma woowee la def itee sax du ma ko taal ndeysaan wax nga dëgg te ñoom <laughs> ñu ñuy bëggee moom ak Yaxya ñaanal ko yàlla na ko yàlla sàmm ak ñoom jeyna ba ñoom mama Cerno mhm. Yaxya ñoom dalandaa famille bi yëpp ñaanal leen mhm. ñu ñu bëgg yonent ñaanal leen sama lépp yaa Fatou nuyu ko nuyu yaaya mère Dramé mhm. nuyu Amadou borom këram mu nga Italie mhm. ñaanal leen borom bi doon leen sàmm amiin doon leen defal tawfiq amiin nuyu waa régie waaye ñu nuyu la macha allah waaw ñaanal monsieur le maire nag Pape ma Diop mhm. waaw ma ma Diop suñu xarit la suñu soppe la suñu lépp la ñooy bokk toogandoo daayira di góoru pend mii si waaw di sa góor moom moom moo ma ni dama bëgg nga créer entreprise moo tax ma créer entreprise macha allah muy Al Amine business fourniteur a service. macha allah waaw moom Pape Ma Diop ñaanal ko yàlla na ko yàlla sàmm. Mhm. yàlla defal ko tawféex. Mhm. yàggul dara yónnee nañu àddee ju baree bari. allah ñaanal ko yàlla bu ko kenn ëppale ci yonent bi. macha allah yàlla dund ba ñu naan ko son excellence. amiin amiin ci darajee rasulullah. amiin ndax bu amee nga am kat. yàlla <laughs> dëgg la dëgg la. <laughs> loolu wax dëgg la eh, xam naa da ngay tëjee eh, sëñ Babacar ñu may ko suñu soxna soxna Xadija moom xam ne sëñ Babacar lay lay lay nooyee la <laughs> wallaay xam nga mariage ndeysaan waaye jaamu bëgg yàlla ak dogalam wax nga dëgg Serigne Babacar ni ma la bëggee yow mal xiyaam nga bul dem ba ma maam Serigne Babacar ni ma la wóoloo maam yow mal xiyaam bul dem ba ma waaw waaw ah, Serigne Babacar ku la jox xolam su la bàyyiwul dana dem aljanaay amin amin ma yóbbante de Cheikh Omar Kane mu gaaw sëñ Cheikh Omar Kane ayca bismillah taala zikra bismillah léegi léegi insha rabbi